moo tax képp koo xam ne dañ lay gis yaa ngi toog ci média yi ku ci mel ne Pam Ndiaye loolu moo ñuy yóbbu ci ay mbiram ak téye guñ ko téye da leen di fatt danga leen di sonal te loolu da am ku ma ci waxtaanal di nga président Macky Sall nit la koo xam ne xajowul dara problème mu Sénégal yépp loolu la nit la ku xajowul dara maanaam nit la koo xam ne ay wax la mënta muñ te Serigne Fall daan wax naan nit ko boo mënul muñ ay bang-bangam matoo ko kilifa. ñun suñu kilifa daf ñu topp ci ay détails ay Omar Gueye wax na lii lu tax Omar Gueye wax lii lu tax Omar Gueye wax lee alors moom dafa waroon nekk ci sur les grandes lignes maanaam li ëpp solo te yitteel askan wi du lu ma Samba wax lu du lu ma Demba wax déggu fi lu kenn déggul déggu fi lu Abdou Diouf déggul déggu fi lu Senghor déggul déggu fi lu laay Wade déggul pourtant ñooñu dandoon muñ lu bari pourtant Macky Sall mu dul muñ dégg naa c'est sa personnalité ay wax lay bañ di ngay wax ñi ñuy wax ci réseaux day fàtt kii di président Macky Sall yaa ngi gis bi mu fi wax ci mafia kàcci kàcci kàcci kàcci gi dina dakk ci réew mi njëkkewul ci kàcci kàcci gi Macky Sall ci wax sa xalaat li may wax ni man dama daan def émission kàddu réew mi wax sa xalaat wax sa xalaat moo ko njëkk a problème ci àddina mooy wax sa xalaat te boobu réseaux sociaux tollagul ne wax sa xalaat yi ci rajo yi war nañ ko seetaat war nañ ko seetaat du ku mu neex rek nga jug wax lu la neex moom yooyu lay lijjanti ay wax sa xalaat président Macky xam nga lay lijjanti. ay euh, kii nu mu tudd revue de presse Omar Gueye revue de presse na Laye Bob revue de presse na Ahmed Aïdara revue de presse na revue de presse ni ñu koy defee ci Sénégal du noonu parce que dañ koy commenter di ci waxal dañuy politique maanaam ñoom détails yooyu li lijjanti amuñu jotu askan wi ay jotu diw revue de presse na diw wax sa xalaat euh, Macky Sall dingat na fi wax sa xalaat ñu bari dama foog ni réseaux sociaux moo ko sonal dingat na fi revue de presse Macky dem na sax ba ligne éditoriale journaux yi fii da koy def problème loolu moo tax Walf mënul am jàmm képp ku fay liggéey mënoo am jàmm loolu nag moo ñu yóbbu tey ji ba réseaux sociaux lu ci wax nit wax mu doon musiba heure bu demee ci sëriñ si non il faut que ñu réguler réseaux sociaux yi il faut que ñu assainir lay médias waaye assainir lay médias médias yi ñoo gën a tuuti ci lu ñu war a assainir ak réseaux sociaux yi ndaxte réseaux sociaux lépp lu yàq ci réew mi ñu ngi koy defar ñaata nit ñoo fi jaaree doon ay millionnaire à cause des réseaux sociaux ñaata nit tey jii lañu xam ci àddina ñu mën ñiy jariñ seen askan ndax réseaux sociaux te bu réseaux sociaux amuloon du am maanaam réseaux sociaux njariñam mu ëpp lu mu yàq waaye moom yooyu koy fatt bu sañoon moom moom rek mooy wax parce que loolu ko ay nit ay nitam tàmbal mooy Macky loo wax noonu la loo def noonu la loo dégg nongu la maanaam noonu lay dundee léegi nag sénégalais yi nag loolu lañ ko mayul loolu nag mooy problème mu nguuru président mag Macky Sall maanaam di ko def ba noppi nag kenn du ko fi waxee ñu assainir presse bi assainir réseaux sociaux yi mais nañ ko njëkkee ci gouvernement bi mais nañ ko njëkkee ci gouvernement bi ñaata ministre lañ fi fal te waruñu doon ay ministre ñaata directeur lañ fi fal te waruñu doon ay directeur ñaata député lañ fi far te saagaa tax ñu fal leen kon nan assainir ministre yi ñaat député ministre lañ fi impliqué parce que danoo sàcc alalu réew mi wala da leen a jiñ ne danoo sàcc alalu réew mi ñaata directeur lañ fiy tudd ci ay rapport ne danoo fob alalu réew mi ñaata nit ñoo nekk ci nguur gi di def naka sudul noonu ñaata nit ñoo nekk ci administration bu Sénégal te waruñu fa woon ne ñaata nit ñoo nekk ci fonction publique te waruñu ne ñu ñuy bëgg a rey naaj presse beeg réseaux sociaux yi non non yi nañ ko ibbee li lay kërëb kërëb nanu assainir réew mi. réew mi bu ñu ko doon assenir sëpp la ñuy assainir diine jeeg lépp la assenir kon presse bi moo war a gën a tuut ci li ñuy assenir bay si sa wewu tànk nañ ko njëkkee ca présidence jaaree ko ci assemblée dugg ci administration bi dugg ci justice bi noonu mu amee ay nit yu jaar yoon noonu la amee ay nit yoo xam ne dañuy jàngal yoon kon bu ñu kenn rey ak presse bi léegi nag presse boobu moom dafa mel ne ñoom ñoo daas seen paaka presse bi li leen dal dañ cee am loxo ñun journalistes yi dañ ci am loxo parce que ñun nag danoo daas paaka jël ko jox ko sunu noonu na ko nanu rendi ñu naan ay code de la presse ay carte de la presse may nguur gi mu am dogalu toog naan kii mooy journaliste ak kii waru ko doon loolu loolu li may nguur gi moo ëpp te loolu presse bi dañ ci am responsabilité les patrons de presse dañ ci am responsabilité léegi ñenn rek ñoo ci dee mooy les reporters ñenn rek ñoo ci dee mooy sunu masque gi ndax fa ñuy lijjantee ñun duñ ko fekkee décision yi ñuy jël ñun duñ ko fekkee décision yooyu nag ñuy jël yenn saay baaxul mooy daanu suñu kaw code de la presse bi lan moo ci ne dem na ay dogal yoo xam ne dem nañ ba ne ab préfet wala ab gouverneur sañ naa toog dégg nit di wax mu ne béréb bee diw di waxee na muy waxee du noonu nañ ko tëj loolu dafa amoon ci Laay Wàdd Abdou Diouf sax loolu amu ci woon tey jii fi ñu Macky Sall yóbbu. bari na ñu bari ñu bett mais man bettu ma bi ñu waxee fii ci Covid 19 naan ay état d'urgence rek ay couvre-feu mais man toog naa ci émission Taku Show nan ci dictature la ñu jëmee fa ñu jëmee ndox amu fa waaye danoo bëgg a noot am troisième mandat bi mu koy wax waxu dof lañ jàppoon moom laay wax benn femme woo ma ca Mbour na mu Omar wax ji nga wax gars yi ñu ngi lay ree ma ne ko mais ay état d'urgence couvre-feu yi wax corona mais corona bi dañ ko bëgg a jariñoo parce que dafa am ay rapport ay kilifa yi defoon ay jàngat ci bi corona di ñëw ñu ne corona am na ay nguur yoo xam ne ci la ñuy daanoo waaye corona am na ci ay nguur yoo xam ne ci la ñuy noté seen askan ba faw ci biir corona bi ñaata loi lañ fi voté loi yooyu moo ñu topp ba tey dem ba naan taskatu xabaar bi nii la war a doxee nii la sañ di waxee léegi dañoo bëgg a yemale rek journaliste yi ci toog présenté journal teg ci def revue de presse yam foofu quoi nekk ci journalisme bu classique bu yàgg. àdduna dox léegi nit seetatul def analyse te su analyse da daan am danga nga daan déglu ay Aliou Ndiaye déglu Babacar Fall RFM daan déglu usmaan Ousmane Sène Walfadjri boo lire journaux yi daan gis ay Mame Ongué Ndiaye di bind dara xew ñu wax ci seen xalaat journaliste bu mënatul xalaat na bàyyi toog dara xew mu wax ci xalaat def ci commentaire def ci chronique wala mu def ci analyse léegi ñu ne loolu waratul am la justice est rendue au nom peuple askan wi la nii justice bi askan wi la fi nekkal ñu ne non justice bi léegi amul sañu ñu ñun di commenter benn Pape Ndiaye doon ab chroniqueur ci wàllu yoon sañul dara xew ci justice mu commandé ko wax ci xalaatam la justice est rendue au nom du peuple peuple boobu amuñu seen gis-gis ci ne justice di doxee ñu bëgg ñu yóbbu sur la république de juges ñun ñëpp ñu fas yéene ko nangu jatang suñu bopp tënk suñu bopp jébbal président Macky Sall réew mi ñu juddoo duñu fi tudd jéer yi duñu mbadantaan juddoo fi màggee fi kenn ëppalewuñ fi lenn léegi ñu bëgg am fu ñuy yemloo damay déglu wayu Thione Seck bi apartheid ma ne mbaadu Sénégal dafa dugg ci apartheid ndaxte laluy wax maanaam nekk ca biir dëkk amatoo fa baat amatoo fa kàddu mais loolu moo am Sénégal lan la mooy ci apartheid sañatoo wax lu la neex di la di la xooloo fi bëgg ñoom mais wute mais ci la xam-xam di génn. mais pourquoi ñu ni léegi yéen ñëpp da ngeen war a bokk bët bi ngeen xoolee yéen ñëpp da ngeen war a bokk fi ngeen di gisee presse bi nangu ko avant Macky Sall bu mësoon a jàpp ay journaliste presse bi yëpp ñooy xëy bind ko def ko à la une Pam Ndiaye ci kaso bi mu mel ne dara xewul lan la Pam Ndiaye def lan la wax li wax bu dul dëgg nan ko rectifier wala bu bu dee lu mu wax du dëgg nan génne dëgg gi. mbiri Adji Sarr ci la moo tax ñu téye Pape Alé ci la moo tax ñu woo Pape Ndiaye ñu ne duñ ci wax dañ ciy wax parce que du Omar Gueye moo jotee Adji Sarr information la boo xam ne askan wi yëpp ñoo ko bokk ñëpp di ci wax ku ci am xalaat da nga ko ciy wax la cooyoon di àtte nag yoon a xam léegi président Macky Sall jël yoon def ko yetu xeexukaay ay nitam lu def gongo kaso bii bëgg fees ana Serigne Assane Mbacké foofu nag laay wax ak waa Pastef ak ñoom Ousmane Sonko usman porté na plainte lu lu baax la mais nag mbéjum kanam boro koy boroom a koy fajal boppam gatsa gatsa jot na ndaxte nag Ousmane Sonko bu jàppee ni xeex bi moom rek moo koy xeex gañe ko day nax boppam parce que nag bu dee ni képp koo xam ne yaa ngi taxaw Ousmane Sonko ci wàllu xaalis Kopar Express tëj nañ buntu boobu tëj nañ robinet ya journaliste ya koy waxal ñu ngi leen di tëj ña ko doon xeexal ci mbedd ñu ngi leen di tëj ba ci Amidia ñoom ñëpp ñu ngi leen Amidial lan lañ ko jàppee ci envoyé xaalis loolu lépp di am ñu yóbbu ay nit instruction du la àtte du la def dara da lay tëj ba heure bu leen neex la ñu bala réew mi yëpp na patt di seetaan ñi war a wax ci réew mi duñ wax bu ñu waxee ñu ay waxi kankurang ak luñ xamul lan mooy kankurang kankurang kay moo gën kàkkatar garab gu mu yëg ànd ak moom nduróog moom kankurang xam ne moom a gënal ab kàkkatar ku ñuul weexoo safoo yàpp safoo jën ñépp xam dëgg gi ci réew mi ñépp na pat nan bàyyi Pape Ndiaye mais loolu aussi taxawaay journaliste nin taxawoo Pape Alé Niang ba mu génne taxawoo ko wal fajri bi ñu ko tëjee lan war a taxawoo Pape Ndiaye ndaxte ku foog ni mbir mi ci Pape njaay rek lay dal yaa ngi nax sa bopp loolu tax li Ousmane Sonko waxoon am solo regroupement des force vive de la nation maanaam réew mi mi politicien di société civile ñëpp danoo war a daje ci benn objectif mooy benn ñi ci kaso bi dañ leen war a libérer beneen bi ci topp mooy élection yi jëm dañ ko war a teg ci yoon beneen bi ci topp mooy justice dafa war di def liggéeyam normalement parce que la justice est rendue au du peuple justice am na droit wax ko ne ni ngay doxee du noonu tegul ci yoon wi. ndaxte réew mi la Kéba mbay doon wax ñëpp a ngi nalaw ñëpp a tëdd waaye kenn nalawul nit ñi xam na li xew képp ku ñuy gëmal ni justice mi ngi def liggéeyam normalement non du loolu waxuñu sax justice bi jëm ci mbiri politique yeeg mais y a des yoo xam ne tey jii ñu ngi si kaso bi lan lañ def am na ay boy yu fi jàppoon yóbbu leen mais dañ lay yóbbu yóbbu la ci kanamu juge bi après du la tax dara da jàpp na la rek parce que Ousmane Sonko moo tax. mais am na ci ñoo xam ne tey ñi leen jàpp sax xam nu tax ñu jàpp leen kon nanu libéré Pape Ndiaye nanu libéré Pape njaay ku foog ne nag Pape njaay rek la mbir mi di dal sa kawam yaa ngi nax sa bopp ñii pareeguñu la ma ko doon wax naan seen mandarga bi fas bi xam ne Idrissa Seck da koo waxoon kii di président Macky Sall dama daje mu ni ko wàññil xeer yi mu ni ko sa mandarga fas nga yor te fas nag boo bëggee mu daw da koy làbbali waaye fas wi yemul ci daw mais fas wi day màmm fasu maam nag mën nañu yóbbee fu ne loolu moo ñuy indi nag ci justice bi waaw Pape Ndiaye